yoo yaa ngi fii xale yaa ngi koy génnewaat ba léegi mane ne Sénégalais yi njumte am na de ndax jox Macky Sall deuxième mandat musiba la ci Sénégal mane ne woon Sénégalais nag juróom at yi di ñëw di ngeen souffrir du yéene de yàlla xam na ni yéenewu ma lool Sénégal yërmande rek la ñu fasal Sénégal ci suñu xol bi mais xam réalité bi moo taxoon ma ne Sénégalais di ngeen souffrir. waaw moom def na ñeenti at la ko tegu Séné est-ce que am na sénégalais bu mun a weddi ni sénégalais yaa ngi souffrir fi mu toll nii ana mbënd bi ana njëgu dund gi ana njëgu loyer bi ana liggéeyu ndaw ñi ana paj mi ana njàng mi lan moo dox ci Sénégal nañ moo wax benn secteur boo xam ne mu ngi dox senegal kan moo ma ko mën a génneel amut dara doxul kon su ma taxawaatee fii ñu ne waa ji at ak genn wàlla ko dese may leen attaque genn wàll googu Sénégal dinañu souffrir encore ngeen war ma gëm parce que dama ko teg fu leer nee na gouvernement la teg gouvernement de combat moom dafa yéex a yeew combat bi commencé na bu yàgg moom daan nañ ko ba sëlëm ko muy doog a yeewu naan gouvernement de combat combat bi doorul tey combat bi dafa door bi mu commencé ay tappale mois de mars ñu duma ko sur le terrain mu ñëwaat élection locale li génn ci urne yi ñu duma ko luy ville bu mag mu ñàkk ko ñëw élection législative ñu duma ko bu gën a métteeti te bu ñu demee 2024 ñu faxas ko mu dem muy doog a yeewu naan gouvernement de combat moom kay moo ñuy tuddee boppam le lion qui dort et qui se réveille jamais waaye gouvernement de combat par rapport à quoi et par rapport à qui est-ce que combat bi pour régler problème sénégalais la déedéet dama ne xool leen gouvernement bi kan moo ko jiite Amadou Ba Amadou Ba yor na ministre coûté pendant sept ans mënoo taxawal économie ñu ne la un an et demi jox nañ la premier ministre tey problème Sénégal jeex Sénégal nag boo fi amee say milliards yaa xam foo ko jëlee ndax man de inspecteur des impôts la waaye boo fi amee say milliards 2014 déjà neewoon nañu 800 millions la def ci image am budget image léegi nag xam naa ay milliards lay doon boo fi amee say milliards lu leen ñu bindal la ko. l'homme de la situation nangam nangam mu mel ni waa ji barki démb rek nekkul woon ministère <laughs> ministre de l'économie de des finances te dara doxul ci réew mi moo wax ko sénégal yi man yéen lay waxal Sénégalais yi lu toll ni tarfata ay du changé waaye day gën a garaaw xam ngeen ndax la Macky Sall dafa yi depuis le début xam nga fu mu juumee mosul xam lan mooy priorité Sénégal lu neex tubaab yi la doon xool. moo tax tubaab bi ne ko defal ay infrastructure parce que ñuy entreprise soo defee infrastructure ca la ñuy mën a am marché sa dëkk tabaxal ay stade tabaxal ay arène tabaxal ay autoroute loolu lépp baax na de waaye lan mooy priorité Sénégal ak lan lañ ci def ana mbayu Sénégal mbay dañu ne woon 2017 la ñuy am autosuffisance en riz tey li ñu doon importer ci ceeb lu ko raw la ñuy importer ana mbayu Sénégal mbay réew mu mënul téye mbayam réew moom mënul fexe ba développé waaye bu àdduna bi ci sóolee yow nga soj parce que tey suy dem ba Ukraine di yelwaan ay blé fa suñu suuf sii nga xam ne yàlla jox nañu ko kenn xamul nu mu toll lan lañ ci def ba tey suñu mbay mënul dundal Sénégal ana industrie Sénégal zéro tissu industriel réew mu amul industrie pour transformer da ngay bay mënoo développer mënoo créer emploi mënoo am résilience mooy su amee problème ci àdduna bi nga mën koo dëkku ana loolu yooyu mooy pureté Sénégal ana napp gi jaay na géej gi yëpp ana càmm gi zéro nga foog ne di nga développé réew ci anam googu ñu naan sa addi nañu premier ministre dàq nañu premier ministre sénégalais ku gëm ni loolu mooy soppi mooy tax ndaw ñi am liggéey moo tax pañ mi baax moo tax euh, euh, économie bi développé nax nga sa bopp dara du dox ñeneen ñi ci nekk ministre yëpp nekkuñu foon ministre suñu scandale pétrole ci ministre yooyu la jaar suñu scandale Prodac ci ministère yi la jaar suñu scandale bi ñuy bëgg a jaay suufu suufu Batrin beeg ñoom seen ci ministère yi la jaar suñ ci taxawul woon tapé sur la table tey jaay nañ ko ñi am seetlu yëpp jàpp gis nañ ni dénominateur commun bi ñu am mooy kan moo dàq saaga Ousmane Sonko ci ñoom léegi ku bëgg a doon ministre wala nga am ay milliards saagal Ousmane Sonko. Macky Sall fi mu fi mu fi mu yóbbu Sénégal fi mu wàcce Sénégal dafa sax indécent ci Macky Sall rek la Sénégal eggee fi waxu waaso waxu xeet waxu région saaga suba ak ngoon suñu waxee ñu ne xale yi saaga ci ci Facebook bi déedéet xale yi dañuy développé ay anticorps par rapport ak ay mag yu leen di saaga tous les jours man di kenn musuma dégg ma saaga kenn gis gi ma ànd ak saagakat Macky Sall ngay gis ku saaga suba ngoon jot moo ko pare jox ko xaalis photo ak moom. jabaram toog ñu photo foog nga ni Senghor dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdou Diouf dina doon wàcce république à niveau foog nga ni Abdoulaye dina doon wàcce république à niveau tey saagakat yi ñooy ñooy doxantu biir palais nit ñi suñu bëggee wax nañu wax loolu moo gën waaye suñu jógee waaw goney Pastef yi nangam nangam goney Pastef yi anticorps la mooy ko yaram bu ko feebar duggee dafa am loo xam da koy développé ci ci biiram pour mën a xeex feebar boobu waaye guney Pastef fi jóguñu saaga kenn guney opposition jóguñu saaga kenn dañuy tontu ñi nga xam ne ci loolu la dëkk suba ngoon moo tax bu dee politique tam waaye ñoom addition de zéro la ñi ñu jël ñëpp ne dañ leen def ministre c'est pas eux qui vont faire des combats politiques kan moo ci gañee fi mu dëkk ci ñaari élection yi passé ñoom ñëpp dañ leen duma ay liste remplaçant ñoo leen di duma ban poids politique la ñoom nañ ma wax jël leen kenn kenn ministre yeeg premier ministre ak yëpp dóor nañ leen élection locale duma leen élection législative kon du ci administrativement du ci politiquement du fenn foo mën a nattee du ci prise en charge des préoccupations des Sénégalais du fenn foo mën a nattee ne ñi gouvernement de combat la mu des nag kon ban combat combat ak opposition c'est pas un un escadron de bras cassés et de canards boiteux qui va combattre l'opposition kenn ci ñoom gañewu ci bureau de vote du ñu ñoo ñuy combattre moo wax leen nag vrai gouvernement de combat Macky Sall xam ngeen lan général Moussa Fall la commissaire yàgg la une partie de la justice la et une partie de la presse la lii mooy gouvernement de combat ki Sall ah. du lële général Moussa Fall ak yàgg gëmloo ko ni jënd na lu doy ci ngànnaay ci grenade lacrymogène ak ak leneen ba ku yëngatuñu duma la moo tax lu xew ci réew mi ñu génne char de combat fu ne pour dox ci ci ci ci ci xelu seet ah, xale yi ba dootuñu ñeme mais dañoo xamul lu xew laajal Ben Ali laajal Moubarak laajal président Soudan gis nga un peuple qui dit non gisuma gendarmerie wala police bu koy téye yooyu ay waxu caaxaan la ñaareel bi mooy une partie de la justice sénégalaise est-ce que tey xoolal classe politique bi su ñu nee dem vingt 2024 nee nañu Khalifa Sall du doon candidat nee nañ Karim Wade du doon candidat léegi ñu ngi ruma daal naan Barthélémy Dias du doon candidat Déthié mi am na benn surtout man moom ma teel ko wax gannaaw yàlla amul luy dund lu ma mën a tere ne candidat loolu moom du lu ñuy wax waaye lépp fan na jaar. mu ngi jaar ci justice ci ay tappale yu kenn xamul soo joxee ñoo magistrat jóg bel bel bel bel bel ñun kenn mënuñoo xokkatal kenn mënuñoo intime gis nga réew mi lu fi jara wax yëpp dinañ ko wax parce que dans une démocratie tout se discute amul sens interdit bu justice defee lu dul yoon ñu wax ko tey la la justice et le premier bras de Macky Sall moom mooy instrument pour la liquidation politique des adversaires de Macky Sall justice waaye nag lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru de nañu tey parce que ñun ñëpp sénégalais lañu te kenn ëppalewul kenn ci dëkk bi la presse maa ngi félicité Barthélémy Dias li mu wax keroog dëgg la une bonne partie de la presse bokk problème la ci Sénégal barki yàlla booy xool presse Sénégal nga xool presse Mali wala presse Burkina da ngay rus c'est devenu un problème la ko andi nag yéen journalistes yi taxul ñeen ñu wax de yéen moom ñoo bokk coono ñooy naanandoo suñu lacrymogène bu ñuy tourné ñooy fanaanandoo ci àll bi seen patron yi de mbëkk fële ñu jox leen ay milliards te duñ leen ci jox ñoom la ñuy waxal ay dóor